waaw alors alors suma mbokki Gambien si suma am di jàmm yi ma déglu ci bitim réew ak ñi ma déglu ci réew mi man la Samsudeen Sarr ma dellu su waat tey di alarba fukki fan ak benn ci weeri august 2021 tey nag xal na tardé tuuti parce que yu bari laa doon def guddi gi yëpp dama doon binda ba pare nga xëy ci suba gisuma ndox amut ci atool Eh, gannaaw gi demoon naa ci biij bi nag waaye ndox amu fi soo moo tax tey suma audio bi dafa xala léet tey nag balaa maa ñu wax dara dama bugg a Aboubacar Akarafa mu nekk ah, itali moom dama koo gërëm bu baax parce que moom suñ audio yëpp ak yi ñoo def yëpp moo ñu ko dugalal YouTube ba pare. am ci ité bu baax mun liggéeyam bi loo ko santa IT daal mun na ko you kontaan naa ci liggéeyam trop dama ne woon tey dinaa ko gërëm another thing li ma wax itam mooy ne am na chat chat group buñ ubbi woon ñu ne captain Sarr bu Jallo xawma fans chat group you know naa ci démb ci guddi parce dama foogoon ne dañoo ñëw pour ñu diisoo di waxtaan di eete di def audio yoo xam ne dafa baax waaye su leen naa indi saasaay yoo xam ne xamuñ dara nekk ay con artiste ñuy ñëw di ñu saaga ma ne fii duma fa dugaati te génn naa ci groupe boobu am sori de ñi ko set waaye man duma mun a tolerate you ngeen di jël nonsense people from uh, anywhere ñu ñëw di wax yu ñaaw yoo xam ne wéeruñ ko ci dara gannaaw stupidity ak ña a xam àdduna so man dama ne génn naa ci chat group boobu and I'm not going back the other thing mooy ne um, maa ngi leen naa yëgal ne ajuma bi su neexee yàlla tey la on the 11 12 dinaa freeze ni ma ñëwee regularly di waxtaan ak yéen nii every day I will make it my choice because mun naa am yu bëri maa mun a def ci ron without ñëw di wax nit ñi in fact li ma gënoon a motiver pour ma gënoon naa di waxtaan ak yéen ci problème réew mi mooy dama gisoon yu ñaaw yu doon xam especially tiny TRRC bi ma gis ne naa ko leeral nit ñi ñu xam ko waaye ñëw naa ci ba xëj na dama li ma waroon naa def def naa ko <laughs> bu leen toog nag foog ne dañ ma génneel. sarahi harbu ñuul bu am ñenenti bejen ma nita sango dari ninki nanka o nonsense yoyu man i am not into that you know be pare ne so wax ne dañ gëm yàlla di pare foog ne ñoom nit mun naa toog rey nit yàlla reyu ko ñooñu seen gëm yàlla eegut fenn waaw ñi foog ne ñi foog ne ñi gëm ne yàlla moo la binda bam laa bind tàgguwu la bam laa rey te la tàggu te ku fi ku bind ku binda moo la ku ku ku moo la binda ku dee moo la rey soo ma wax ne nit ñee dee rey nit ñi ci xay xonjong ak yooyu kon yow gëmulaa yàlla yow yéefar nga yow naka yéefar ya nekkoon màkka tay mi yóneen ba saa ñu la tane parce que yow dof nga laa la mën a wax sax you man nag soo gisee may dee ubbee suma introduction every day di wax nit ñi yëpp neen hello hello man àdduna yëpp laay waxal damaa wax a christian si damaa wax a muslim si damaa wax a juda ju ne xam ne ñu nekk ci judaïsme damaa wax a bouddhiste si damaa wax a you ah, ah, koo xelaat loo xam ne nit am ci àdduna bugga naa suma message su eggee ci yow nga xam ne ni tay wax a yow andoon ne dama ñëw di fugg suma de man jullit laa ci jullit ci ci ci islam laa juddu ci laa nampa ci lañ ma yar ma jàng alxuraan mun naa toog fii di leen taril ay saar yéen xam na ay ñaan yoo xam ne su ma ko waxoon fii dangeen lii saam saar waxu ko <laughs> yéen إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سهر تانا إزال ملائكة ورو فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي أتأمد لهن فجر نيان بوغو فيكو يالا تك سوما لكو وخون نينكي مونا جدو جرنو يرو ديغا خامن من لما خام خمولوكو waye duma ñew fi di len tedal suma affaire alquran amna yalla xey te xamna ni jangulo soo li maa wax am na billions and billions of people ñoo xam ne xamuñ islaam xamuñ judaïsme xamuñ christianité te yàlla fam leen fam leen juddoo tàgguwu leen <laughs> waxu dinaa la jut dinaa la génne ci kilifa yoo xam ne duñ xam dara gannaaw judaïsme la ñoo xam bouddhisme la ñoo xam yàlla bam leen a binda di leen dugal foofu ñooñu du seen coobare pour ñu ñàkk a nekk islam nga foog ne nag ay billions of people ñi nga xam ne yëpp juddoo wuñ ci islaam juddoo wuñ ci christianity juddoo te yàlla moo leen juddoo fi ñu juddoo ñooñu xam ngeen li leen yàlla di tëralee seen affaire suñ dee dem àllaaxira su ñàkk fayda ñàkk xam àdduna ñàkk xam jamono mooy ak jàkka sam sa religion moo tax ngeen dee wax li ngeen a waxee toog ci sa ngunu ngaaraar ndax da def sa xarfa fuufa mun ngaa def soo demee India <laughs> ñoom it ñu ngi am seen xarfa fuufa yi China seen li fi ñoom liñ gëm ak luñ gëmut liñ gëm du benn islam bi moo nekk ci àdduna si bi <laughs> ak léegi mutu two thousand years judaïsme moo fi njëkk a ñëw dañu wax ni yàlla benn la christianité toppa ci ne yàlla benn la waaye balaa judaïsme lañ amoon fii te àdduna nekk na ci àdduna si balaa ñoo wax bañ bañ génnee ci xërëm yi ci zoroisme lañu nekk na ci àdduna si pour ñetta junne at nit ñaa ngi gëm ne yàlla am yàlla bu baax yàlla bu bon in fact dañ wax ne sax foofu la foofu la judaïsme jëlee iblis ak yàlla parce dañ daan wax ne ñaari yàlla moo am yàlla bu baax yàlla bu bon yàlla bu baax bi moo amee suñu roo yi ñu ne yàlla bu bon bi moo amee mbirum àdduna loolu lañ ko moon ne nag dañ nekk ci xare boo xam ne you know ku nekk dafa xicca pour defar bu baax moo tax su yàlla bu baax bindee su bindee life yàlla bu bon bi dina ko jéem a yàqa pour xëcca ko mu nekk ci ay suuf nekk ay mbébét ay noonu lañ gëmoon ay ñetti junne at nit a ngi gëm lii <laughs> wa maa laa wax time boobu judaïsme moo yonti yàlla musa ñoom Ibrahim in fact yonti yàlla Ibrahim moo njëkk taxaw ne yàlla benn la judaïsme foofa la faaxee ko Jesus Christ yahoot la woon ci juus la jógee woon soo gisee ñu ne christianité sax. mu mu ñëw dëgëral ko mooy leen ne ba ñoo wax judaïsme parce que ñoom dañ foogoon ne juus yi dañ foogoon ne ñoom rek la yàlla tànna pour ñu xam ne benn yàllaa fi am te seen religion bi ci ñoom la war a yem moo tax juus yi benn tey dañ gëm ne ñoo gën ci doom ci ci àdduna ne bandi Israël yàlla daf leen daf leen daf leen teral loolu soo riidee yëpp dañoo ne la bandi Israël Jesus Christ mu eesa mu jógee ci seen biir di juu pour mu génnee ci mu génnee soo riidee kii naka la turaate euh, Risa Aslan kooku religious scholar la mu ngi tëj I think one of the highest universities in America waa Iran la dafa jàngal religion bu baax a mu laa won ne Jesus Christ pour mu génnee ci juusi ne leen lii benn yu waxi benn yàlla pour àdduna yépp la mu indi christianity daf ko dafa génnee culture boo xam ne mu ngi woon ci juusi yoo xam ne xam na ne su ko génn su ko yóbboo ci biti nit ñi duñ ko nangu parce que juus ñoo njëkkaa taxawal ne nit dafa war a xaraf ñoo njëkkaa taxaw ne góor dafa war a xaraf christianity nag bi mu ñëwee Jesus Christ ñoom John di ñoo ñooñu ñoo taxaw ne pour nga gëm ne benn yàlla am na nekku ne dafa da nga war a xaraf parce que ñoom dañ wax ne soo xarafut waru bokkuloo ci ci ci diine benn yàlla am na ñii nag dañ ne woon kii ñu Jesus Christ bi mu ñëwee in fact ñu leen doon ooyee di zealots ñoom ñoo doon wax ne gëmmi benn yàlla emut ci emut ci judaïsme dafa war a àdduna yëpp a ko war a xam foofu la christianité faaxee ko moo tax soo gisee di first testament lañ bind judaïsme la ca ëpp yëpp mu ngi ci mu ngi ci mu mu ngi ci euh, christian bible bi di second testament soo leen riidee ñaari bukk yooyu di nga gis ne moroles benn la gooree ko ca adam ak adam ak awa ñëw bee ca yónnenti fiñ ñu rek mooy you know judaïsme waxuñ affaire yi Jesus Christ Isa Torah bi waxul affaire yi nga ñëw jël euh, second testament yi bible bi nga seet ko Adam Eve lañ wax ca moom ca commencement bi ba ca Jesus Christ moroon yëpp benn la yëpp benn la waaye waxut dara ci affaire yi Muhammad sallallahu alayhi wa parce que six hundred years after ci la Muhammad sallallahu alayhi wa moom itam société islam fa mu faaxee ca aadama awa jaar ci tooraa bi ñëw ci bible bi ba ista ci ci bi yëpp benn la benn story la waaye balaa boobu yëpp zoroisme moo fi nekkoon soo dof yi toog ci àll bi xamuñ lii géej gi réer jànguñ xamuñ dara ñu ñëw di ñu indil philosophie yoo xam ne foog na ñoo ñu gën a xam yàlla ñu ñu gën a xam yónent yi ñoo ñu xam ne waaw kii suy wax sax duy wax awzu billahi mina seytaani rajim <laughs> dëgg dëgg dafay dof rek moo tax nag waaye bëgguma waste time ci lii génn naa ci forum yi capitaine Sarr Ibou Diallo you know uh, chat bi parce que du ma toog foofu di leen wax di leen ee di leen xam leen loo xam ne man xam naa ne xamu leen ko ngeen di ma indil samba saasaay samba booy ma foog ne pour ñuy promotante la ñu respectante soo amee question nga laaj ma ko soldat yi ku nekk nit ñu baax ñi yëpp dañ ma dee kool su ma saar man de lii daf ma jaaxal ci foog ma wax leen li ma ci foog yéen ma wax ma suñu waxee suñu ma ne leen yow loo ci foog ñu waxtaan ba juboo you know du du benn yoon du ñaari yoon nit ñi dañoo def loolu forum yi nag dama foogoon ne dañ koo def pour suñu amee jaaxa jaaxa ñu ñu ñu ñu ñu ñuy xamalante soo amee information boo xam ne daf ma dama dama ci dama ci war a bokk ma xam ko ma xam ko ma jégal la ko soo amee loo noonu laa fa jàppee woon forum yi waaye ngeen di indi di ma disrespect di indi doomi astafurlah indi ñoo xam ne xamuñ dara dara dara dara ci àdduna ñuy ma saaga te li ma ci gën a naxar yi ñu naan ma ki ñu eh, ki ma doon bàyyil joolaa as if they what, what, what have I done to the Cholas? What have I done to the Cholas? ba pare gëmloo ay joolaa yu bari ne moom ay wàll yu njoogaan wali wàll yu la waaye njoogaan la ba pare di leen wax élection doo am because dégg naa am na youths yu bari ñu ne foo ñi nangoo register sax pour register pour send voters card parce que dañ leen gëm ne élection du am yaay jaambe ngay ñëw te loolu yëpp nonsense la te da ngeen war a understand ne démographie lii war a winloo nit élection it's not only Fonyi Fonyi is thirty four thousand votes man check naa ko two thousand and sixteen Jammeh got APRC got two hundred and two no two hundred and eight thousand votes you minus thirty four thousand you think that's all from Fonyi so you forget it can change the dynamics it's not true ñun soo gisee ñuy def lii dañ dañ leen come together li jub ci dëkk bi ñu def ko lu jubut ci dëkk bi ñu sànni ko ci biti waaye soo góomloo soo dafa fi nekk ne thirty four thousand wóor seen doon wax ne te tey ñëpp duñ nekk APRC ah parce que man am naa tase naa waa fu ñu yu bëri ñoo xam ne they don't want they, they don't have, want to have anything to do with APRC because ñu ne dañ amoon problème yaaya jàmme oh yes I have I don't want to talk about it waaye tase naa waa foo ñu woo xam ne benn jigéen du baax dama tase moom mu wax ma lu garaaw ci affaire am dama man mënuma support APRC because I don't agree with Yaya Jammeh soo su leen foogee ni foo yëpp Yaya Jammeh it's not true léegi ngay génnee almost a chunk of the youth gëm loo leen loo xam ne nonsense la yéen bëggu leen Yaya Jammeh ñëw you know te li ma leen a dëgëral ma li ma leen wax maa ngi leen koo dëgëral soo leen nekkee fii di pousse agenda ne da ngeen a déstabilise dëkk bi mbaa da ngeen naa wax ne da ngeen naa agité pour nonsense ba government bi ba dëkk bi fiil ne yéen a ngi bugg a nekk nuisance because of Yaya Jammeh you know people will just step back people will step back and liñ defoon Charles Taylor they can do it you get this in your head ma leen ko wax every day mënu leen maa gëm waaye man dama xam li maa wax ma nekkuma ci naka ci benn pukus oo ci àll ba toog naan Moria Moria Moria Moria foog ne àdduna si Moria Moria benn Moria amul benn Moria munul dara ci àdduna si benn xërëm munul dara ci àdduna si yàlla moom rek mooy binda mooy rey yàllaay wàññi war sax mooy lii soo man xam naa ne sax su ma dee woon sax ñu ne ku ku ko wax bala la ko ba àllaaxira parce que man su ma dee yàlla rek ma li ma leen a dëgëral moom. ngeen baal ma dafa am ku ma jéem a su ma paree dinaa ko um, dinaa ko dinaa ko koolaat you know sa àdduna yëpp nga ne Moriya yow ko looy def ci àdduna si because soo ko waxee dinañ la dajaleel ay wéccit yónnee la ko fi nga toog because mun a luloo sa boppa dara nga jàppani rëbëje nit ñi looloo ñoo wax rëbëje nit ñaa ngi liggéey su weer dee dañoo fay xaalis bu weex tal you ñu ngi ci suñ jàmm soxlawuñ dara te gënu leen ñoo xam dara ci affaire yi yàlla li xam ci yàlla genn wala sax amu leen ko xam ngeen li ma la wax soo man li ma wax rek mooy ne waaye am naa yu bari yu maa def lii dama foogoon ne sax ñëw naa fii la sax dama cee wés suma time di ci dañ ma cee yàpp sax waaye ajuma su neexee yàlla ma leen a taawu it will be my last episode ma xëy ne Monday ba Friday dinaa ñëw di wax li ma unless ma am loo xam ne is urgent du ma ko defate suma soxla you know parce que dafa wis suma time am naa fii suma xëyee suma si la suma boppa bi ci la dee gën a ñor ci laay gën a mun a bind te maa ngi binda yu bari yoo xam ne you know mun naa ci binda mun naa cee put suma effort you know def ko dan ne damaa wis suma time you know as a matter of fact sax soo gisee sax bokk na ci bi maa ñëw nii bi maa laata lifin nii dama doon déglu benn radio programme Panderi Touré OJ wax na yu rafet nag di wane juboo rek moo war a dem ci kanam wax na ne sax ne ñu ko bu ñu ko laajee affaire Yaya Jammeh mu ko la Jerry Rawlings ci lu ñaaw genn wàllaam Yaya Jammeh dafa ko wax na affaire South Africa ñaaw te fi fa nekk wax na you dëkk bi ni ñoo mun a foojee dem kanam on nga wax rafet yu wax yu rafet ne juboo rek moo ñu mun a yóbbu kanam baalalante. which I was very happy about waaye bu OJ itam his problem mooy ne moom itam dafa foog ne li gën a ñaaw li musa ñaaw ca Gambie bi yëpp Yaya Jammeh la and it's not true loolu it's not true OJ jël nga di wax re-export trade bi ne re-export trade bi sirif di ba ñëwoon ñuy jaay everything in fact dañ daan ooyee Gambia supermarket of West Africa Mali Sierra Leone nga ne dañ daan ay tonnage of rice tonnage of marchandise da nga daan fekk moto yi Guinée Bissau ñuy rang ci port bi nga ne loolu yaa jàmmee ko fi génnee that's not true wajee loolu li ko fi génne génnee 1989 la fi génne bi confédération bi tase te loolu soo gisee gis nga re-export trade boobu mu nga mu nga yànja between 1981 1982 ba 1989 bi ba pare ma ne ko nekk ci confédération euh, bi nekk ñu dugalante ko confédération bi nekk benn ba pare euh, Abdou juuf di xool fale mel ni gisut li ñoo def ci dëkk bi waaye amoon na time bi ñoo nekk sax laajal Benjamin Wilson that former inspector general of police mus naa téye mus naa téye Sénégalais yi sax ñuy sumogul foodstuff bu bëree bëree bëree bëree bëri ak marchandise yu bëri ñu ko smuggle pour dugal ko Sénégal Sénégal sax dañ daan ñëw di jënd di smuggle ñu ko mu nekk coow lu bëri time confédération bi time boobu mu ngi farafeñe tax suñu ñu génnee ko farafeñe mu jël marchandise yooyu tasaare ko jëloo mu am ci coow lu bëri time boobu Sénégal sax fii lañ daan jënd si Sénégal xool fële naan di confédération bi rek jawara lu mu bugg rek na am. you know time there was no time when the economy of the Gambia was that good 1982 then 1989 Why 1989 But confédération be tasee ci rap di rab suñ bu si re-export trade bi stop and not Yaya Jammeh tell the facts my brother I <laughs> respect you a lot Why you know you you. soo yow soo buggee ne dañ war a def réconciliation yaay waaw yaay jaame mun nañ koo bara nga ne lu gën a lu mus a ñaaw ci dëkk bi rek yaay jaame la waaw bu njëkk ba sumaay kobo soo demee jën a jën kobo sax kenn du ko daay dañ koo dañ la koo may yes loolu because exchange rate bi seetal time boobu exchange rate bi dollar bi ak léegi naka la dollar bi mel you know ba pare da nga war a understand sophistication level bi amutoon yéen few ministers yéen amoon télévision seen kër yi you know Mange remember eh, I think it was MC Champ also You know, moom the first person put your um video video video uh, video player video player thousands some thousands dal jar oh yes Why let's be realistic oh, corruption was endemic ci dëkk bi people were corrupt the scandal of ñoom kii Vice President Sehu Sabali, a tax money, I don't know, they call me, you say, how much, that journalist. It was a major crisis here. Because Biden, Sumala wohon American embassy, Americans, kinginona gënoon a président Jammeh because of corruption bi PPP so it is not us. we cannot just try to beat the dead horse You so definitely, I tell you, reconcile Why nga ne li you are not calling for reconciliation you know nga ne ministers yi ya jaam eh, baro nga ne baro is not responsible ministers am yee responsible why you don't have a solution nañ def commission of enquiry, bla bla bla no man I go beyond that conditions here are different you know nga ne yaay ñu ngi indi ay power tillers ñu ngi indi ay tractors yooyu yaay jaame eh. def yaay jaame eh, how many hundreds of tractors lañ indi woon distribute ko indi people pour ñu def farming people bentay ñu ngi woy loolu ne yaa leen loo xam ne a lot of people of course yes jaaxali pàcca project bi yes waxoon nañ ko waaye that was massive corruption li nga xam ne dëkk bi yëpp xamoon nañu they busted the economy of that project cooperative was on its knees cooperative was on its knees GPMB were all there on their knees by the time coup d'état bi di am because bos nañ ñëpp corruption bi yaaxa na ko senior civil servants ñu ko jox pour dénk leen ko sàcc nañ alal gi féetale ko seen boppa ñi sampa seen kër ñi seen doom yi abroad ñuy jànga ñuy def yeah that's what said corruption was bad man I always talk about that and these are the things we need to look at you know I know you are very good in local politics xam nga what to say why I think you missed the point here if you want to say reconciliation you know don't look at what is bad if I can break you down what is bad since coalition bi come into power mun naa fee nekk ëllëg ba suba and du jeex and people will listen to me ne ma dëgg la xam nga waxoon naa la affaire impasse bi nine maa ngi leen doon wax affaire impasse bi 2016 bi ma leen ne electoral commission bi dañ def nonsense You know, yee Sam Sarr dafa dof bla bla lii la lii keneen waaye Sam Sarr lii la it's nonsense there was something wrong the system was wrong system bi correct dafa incompetent ña fa nekk jubuñ what did you do Nobody wanted to talk about it. Now we are seeing it. These are the things you people need to talk about now. Pan Beriture, you should have asked him about Neko. Look, IECB, I'm now over 3,000 registered people, You have, they registered multiple times. Then Corona, like stuff like that. So, Neko, what do you think about it? ak mistake biñ defoon in 2016 in indi impasse bi force days nga ne leen Yaya Jammeh win nii la euh, lose numbers yi nga toogaat ba ci kanam non numbers yi dafa wrong dañ def mistake yooyu ne loolu what does he say about that yeah people will say yeah in both cases he lost anyway yeah he lost anyway waaye amul fenn ci àdduna si yaa wa international community ñaari gaw ñaari parties ñoo nekk America ñetti parties ñoo nekk Europe ñoo nekk Britain ñoo nekk fële noonu ne mus ngaa gis ci àdd yow nga ne Donald Trump suñ waxoon ne seen first resource set of results dañ ci def mistake in their accounting globally nationally ne li they are going to go into an election again dinañ doo defaan li suñ constitution wa dinañ ñëwaat recount oo ñu demaat election waaye ngeen ne war and you were all fanning for war yéen miy wax affaire yi jaamani yéen ñëpp da ngeen doon fan for war war by force war you know man dama ragaloon ne war dina am regardless even if dañu because dañ ñun ñëpp dañ ñu gëmoon ne MFDC jaame du musa dem man it dama gëmoon ne jaame du dem fenn dafa taxaw and they will declare war waaye thank God he left and they came and realized ne liñ doon wax yëpp nekku fi amu fi waaye these are the things that. we should be talking about so you reconcile so leen reconciliation. do conciliation not ne blame everybody you know yeah, eh, yaa fili you know see the number of schools he brought in this country time boobu you know seen brothers yi seen sisters yi seen raka yi seen doom yi Europe rek jàngi I know that why he created universities here Like minister singa gisni permanent secretary you bury. You can get to university with fee. You know? So if you are going to credit Adam Baro, pour mu college in Basse, credit al Yaya Jammeh pour university in this country when for over 30 years munu len ko. Munu len ko. So you know, let's be honest. su ñooy dem ne actually ñu juboo yow nga ne actually ñu juboo lii waaye nga ne li fi bon yëpp kii ko kan naka la juboo bi di neexee yeah, there's a coalition going on we could have been going into li leen fi tax you know yéen ñëpp a fi doon célébrer Ousseynou Dabo oh Ousseynou Dabo oh Ousseynou Dabo bi mu génnee yéen ñëpp a ko throw away ne dafa boss all your aspirations you know so can people say that everything that is going wrong today in this government is Ousseynou Dabo literally you know people are saying that and which is not true <laughs> it is not true dafa nekk ne rek système bi there is something loo xam ne you know nit ñi dañ war a probably Adama Baro. think tank ba mu waxoon ne daf koo def su ko amoon nga xam ne dafa am ay brains you look at what is disturbing the country te seetal seetal political nonsense bi am ci KMC just recently you know tali benn su demee daaxana soma seet na leen daaxana ñeneen ñi suspend ñeneen ñu you know nga ne ñu ne ministre bi ne dañ leen war a reinstate yooyu dellu ñu ñu ne doo fi toog ministère bi ñu xaw ma mu yónnee ay lan ñu ne paratroopers loolu amul soo gis nga yooyu confusion yooyu moo dee degenerate into chaos ci society because soo ne waaw jaama jiñ fa amoon amutoon fay place Yahya Jammeh ba nga xam ne soo gisee ñuy def nonsense ngeen ne démocratie la soo gisee ñuy def corruption nga ne démocratie la soo gisee ñuy destroy the law nga ne comme di swindle nit ñi di nangu seen kër yi nga naan démocratie la then you are you are heading above the cliff, above a cliff, and you will fall if you don't mind. Yeah, so let's be realistic. Mandigluna I love him. He is my brother. We have been colleagues together. PPP. I can remember that. You know, you know, I was once even a part of the PPP. You know, why? You know, the, the fact of the matter is so le kai. Dangane li wa ngane la ngane he wow mom kai mom. sa jëkkër ak si jabar yi daal dañ ngeen war a jubale waa ngeen nekk benn parce que sëy dafa am nattu sëy dafa am lii jabar dafa def mistake jëkkër dafa def mistake waaye da ngeen seet seen doom yi waaye da ngeen naa seet seen néeg bi da nga wer nga ëlbatiku ne nag waaye sa jàkka jëkkër ji ku ko gën a bon amut sa jëkkër ji du la jox dépense sa jëkkër ji su dépense bi du doy sa jëkkër ji daf la dee dóor sa jëkkër ji daf la daan lifin nga foog ne sëy boobu di ko defar non da nga koo yaaxa bari yu ko doon tel oslema let's reconcile jàmm lañ bugg ci dëkk bi wi nga olbatiku ne yaaya jàmme lu fi gën a bon yëpp moo ko fi dem def duñ reconcile because yaa ngi anga population boo xam ne fi mu nekk ñu ngi taxaw ne dañ bugg a walk with Adama Barrow pour ñu move in this election and don't be surprised PPP NPP APRC ñi nga nga ñi ñu talk together and map out a plan for a better Gambia. It doesn't work that way. Yeah, you can celebrate well, a lot of things about Jawara. Jawara, yes. Well, you have to understand the Jawara. Bimneke Angalter, You know, neka fufu. You know, ngane mula la wa demal nga 1990 time bu nga demal ngeen def coalition ci ngum nga nekkon and so on. Way Jawara bi mo joge Angleterre man I spoke to him. Ñep dañ doon bañ ne bul ñew. Ñep dañ ko ko doon bañal. laajal ndeysaan su ma su ma frère ba Mamadou Camara jabaram fa mati mati mati mati dam fa Camara mu ngi mere la dama dee wax moom laaj ko du maa toog di wax a jawara mu ci néegam la may koo wane ko demal ñibbi parce que tay boobu jawara sonnoon na néegam ba mu yaakaaroon Angleterre one of your ministers moo dem nax ko ñu sindool ko ñu dugal ko in a bad you know waa ji séddoo ko band daw bàyyi ko fa ñu nangu kër gi jamono su ñu bitoon daf doon homeless in Amérique in in in England Angleterre yi jàngale yi dañ ko faaleeti angale yi you know faaleetuñ ko because gannaaw gi dañ bii dee fi ne sax li yaaya jàmme def fraction am defu ko they respected him to some extent and he came back bi mu ñëwee mu teral ko ba moo dee you know just for reconciliation mënoon naa déglu you know moom moo doon wax def ko coup mu su déglu woon gars yi ko doon wa waaye ñu ko doon wax bul dem bul dem ñoom ñëpp dañ ñëw ñibbisi ñoom itam di ut luñ am di jéem a seet seen kër yeeg yooyu yaa jaame bi delloo leen yu bëri because coup d'état la gis nga coup d'état su amee expect anything coup d'état nga am li nga wax soldat bi jóg ñetti Georges ñetti heads of state ñu rey leen 800 people coup d'état moo mel noonu so it was a big mistake waaye dëkk bi yëpp a ko doon célébrer ñun biñ ñoo téye maayal tout <laughs> you know you think nga day célébré son ba ca ca stadium ba dëkk bi yëpp ko célébré ne coup d'état am because ñëpp dañ sonnoon ci PPP oh yes xaw ma kenn de waaye Americans they were happy the coup d'état uh, góor ne Jawara was out blueprint bi ñu joxoon it was there They indi leen ko rek as a ceremonial president wa jox ko six months ba aye leen ko ne bu mu taxaw ci élection bi moo tax bi mu génnee saadaal dafa war a àdduna si yëpp neen leen dimbale leen ma dama bugg a dem rek ñu dimbale leen ma ñu génnee ñi suñ leen génnee man dinaa defar organise ñu def free election man du ma taxaw gars yi ne ko yow nag ñoo na xanaa yow 1992 nga ñëw ne da ngaa bàyyi ba ñun ñëpp àdduna si yëpp ne yaa ngee bàyyi you know nga toog ci ay fan nga ne yàlla ne bool bàyyi parce que you know nit ñaa ngi la soxla benn tey that was sa disappointment so nobody trusted him again you know so let's be realistic nañ leen sooy leen dox jaama nañ leen dox jaama waaye doo wax ne xaaf jaama ne pare nañ xaaf xay du dox loolu léegi laa ko déglu ma ne xaaral Lima ma na a wax yëpp suma you know because dama bëggoon na continuer fi ma am ci suñ bési coup d'état bi naka la demee waaye dama ne woon xaaral ma indi lii since dégg naa lii tontu ko I was glad ne you know somebody forwarded I think it was even Malik Mbaye moo ko forward ne you know um, di ma wane ne you know eh, eh, listen to this and I listened to it I was very happy when it started wax wax yu rafet jubo mooy yóbbu dëkk bi fitna buñ ko nangu yee fitna lii lele lale waaye nga bugg a ne non li mu sa ñaaw Gambie yëpp soo yow jubóo boobu du mun a defet if you wanna talk straight talk straight waaye doon talk like a moon tiger di wër di wër di wër that's not gonna do it fix it and you man giseewuma sax ne wër wërsëg nga amoon ci taay nit PPP responsibility la woon looloo tax Gambian si bentee xamuñ liggéey góor you know soo demee Amérique nga gis seen leaders yi ñoom Obama moo tax ku fi toog in eight years however young and beautiful you are within eight years da ngaa mel ni ku màgget rés Donald Trump soo gisee muy ñefe nii yëpp moom two times rek la doon ut waaye American president bu génn da ne géej génn because da ngaa xam ne responsibility lañ la jox liggéey bu bitti la te dañ expect nga génnee ci lu ñor waaye doo fi wax ne su ma wërsëg a taxawoon su ma wërsëg fa la taxawee woon gis nga mentalité boobu moo tax corruption bi kenn mënu ko fee génn parce que liggéey ñu ñoo jox responsabilité yi ñoo jox duñ ko dee gisee responsabilité pour defaral nit ñi waaye wërsëg la pour suñ ñun ak suñ njaboot yi loolu dama ko continuer di ko wax liggéey responsabilité la sa ka nguur ca topp responsabilité la du wërsëg lii we have to talk about this oh ay ministre lañ ko def ay alhamdulilah ay kii wërsëg ak ubbeeku la oh président la non noonu. waru ko demee noonu bés bu ñu la joxee job bii da nga ne waaw tas say responsabilité naka laay mun a prouver ne balaa ma fee jógee dinaa fi bàyyi loo xam ne ëllëg su ma si suñ statistiques yi dinañ xam ne ba fi nekkee lii laa fi def loolu la to be honest with you as much as ne we might talk about di sa Jammeh am na yu bëri yoo xam ne ba suñ statistiques yi dinañ xam ne moo ko fi def yoon yu baax yi. you know télévision ci dëkk bi schools yi numerous schools hospitals yi mu ciy def defar fii a beautiful airport all those things you know amin la yooyu yëpp ñu ngi koo wax te yooyu yëpp mu ngi ci dëkk bi te lifi ko so man daal foofu laa leen a dëgëral you know and uh, di leen wan ne kontaan naa trop you know like oh my, you know like di baalu axa itam you feel ne dama toes seen line you know I'm sorry li ma la wax rek on Friday su neexee yàlla awil dinaa leen jox suma last episode mënoon naa leen naa nareetal suma book bi from beginning to end waaye yooyu yëpp doy na sëg parce que loolu sax taxutoon ma jóg li taxoon ma jóg mooy woon suñ TRRC bi ak façon yi yii nit ñi di ñëw di wax loo xam ne amuñ understand nga you know léegi-léegi nga gis politicien bu ñëw xam wax loo xam ne amut dem def fii ay debate yoo xam ne li ngeen war a debate debatetu leen ko di wax kana war a lii ban good governance and so on te waxu leen security man yooyu ma moo ma ñor waaw parce que xamoon buggulee naa wax sax ne 2016 li bëggoon naa taal réew mi mooy IEC bi yéen ngeen a ngi koy si ka Yaya Jammeh loolu daf is wrong so you have to let's respect this man looloo taxoon may jóg nii di def li maa def nii waaye mun naa waaye toppatoo suma soxla li maa def mun naa koo def nag ci underground bi ni ma ko daan def léegi lu ma bugga mun naa ko binda mun naa ko binda ni maa mun a waxtaanee yéen nii noonu laa a bindee lu ko binda laa gën a mun saa nekk daan daan wax mun naa di ko binda di ko publish ko denca di ko tasaare mun naa ko ku ko bugg a riit nga riit ko ko buggut a riit nga waaye dinaa xam ne su ma kóota def naa ko ci ëllëg a sibee dinañ ñëw waxoon naa ko su ma it yama bindoon daaw benn tey ma leen amee yes loolu la tey fa ma nekkoon laa nekk benn tey musuma génne fi ma nekk xam naa ñu bari time yi even impasse bi ay APRC yu bari dañ waxoon ne non non non non jaame dem na jaame dem jaame dem musuma génne ci suma taxawaay parce que man dama gëmoon ne élection bi jaarut ci yoon te dañ ko waroon naa xool seet fan la jubadee. daan ñu ne dañoo taal xeex ci dëkk bi man looluy woon suma argument ak maa ngi koo argument ba ëllëg ñu ngee dem ci élection nii te lii suñ ko seetaatul dinañ amaat problème waaw su fii laay emale suma audio bi tey ba ëllëg al alxames den gannaaw ëllëg euh, ajuma su neexee yàlla sunu xelaat bi yes bi will be there man maa Ibu Jallow xëy na dinañ door di waxtaan sax you know ñuy seet naka la ñu mu gën a neex gën a baax nga xam ne you know um, suñ amee any issue boo xam ne is important ñu gaada ko weekend ñu def ko you know ñu def ko ma sonna ci noppal ma ci lii because you man I I have a better thing to do than uh, you ay xëtta yoo xam ne not xëtta yi nit ñu baax am am sorry nit ñu because nit ñu baax amaa kool di ma gërëm di ma tàgga ne ñu ngee jàng ci li ma def you waaye liñ leen a góomloo saa saa yi liñ leen a góomloo ne wan élection du am ci dëkk bi because Yaya jàmme ngi ñëw Russian si dañ koo indi dafa dugal State House uh, Adama Barrow génn ba utul leen karta naan lii ma ne tough luck yéen xamu leen ci lu leen sukkandeku ki leen naa nax noonu pour ngeen dajale seen bu rëy yee butut yi di ko ko yónnee daf leen naa nax Yaya Jammeh su fi ñëwee fii ci dëkk bi te gouvernement bi d'accorduñ ci. xare la ci ne xare yi am ci dëkk bi waaye du fi am man sax du ma ko support waaye ma teel yi daal du ma support pour ñu ne Yaya Jammeh dañ koo indi by force ci dëkk bi te government bi aadu ci waaw du ma ko support at all because yëf yi nonsense la because soo ko defee da ngaa lëjal réew mi te loolu soxlawuñ ko ci réew mi luñ mun a def dañ ko boor a jaarale ci yoon ak li ànd ci lu jaadu. liñ leen waxat rek dañ laa nax soo xam naa ne dañ laa nax dañ leen naa nax loolu du mun a am yaay jaame sax du leen mus a toog ba wax leen loolu dafa waroon naa jóg mu sànni leen kàddu dina leen wax ne loolu mënut a am ci àdduna léegi loolu mënut a am ci àdduna ku la de wax ne wax na la ko ci secret wax ko de daf eh, su dee yaay jaame wax ko de ah boos dëgg la de gom naa la waaye bii nag maa nax eh, Russia ñu naan every week mu nga Russia man maa ngi wax ah, <laughs> ma ngi wax gaay nek equatorial guinée lek equatorial guinée xam nañ ko ya jamme su flyer from equatorial guinea to russia international press bi dañ ko pick you know reda yi monitor li duga russia ak li gena yeen xamulen ko yes jamal kasoji bakor gaay di ray in the turkish embassy you know um, in the in the in the saudi embassy in turkey <laughs> lam doon wax yëpp dégg nañ ña doon wax niñ ko naxee ba dugal ko ak nañ koo reyee ak bañ ko defee domalam di ko génnee di ko yéen fa ngeen ne yaay jame dina génn ne maa ngi dem rossiya wi bu nekk àdduna si waxuñ ko ni ko noonu Al Jazeera dinañ ko wax soo wax yi waxi naxaate la di leen gom loolu leen mus loolu leen waru ko gom parce que ki leen naa wax xamul àdduna xamul li moo def daf leen naa nax kon maan la waaw koo xam ne àddunaam mus ta am liggéey bu mus ta am liggéey bu baax liggéeyam yépp naxaate la <laughs> ngeen kii génnaa gom foog ne daf ñoo jaay ah, dama xam alxuraan ak nonsense yooyu jànguloo wallaahi jànguloo soo jàngoon duggoon ci history dem ba about forty thousand years ago àdduna si mu ngi woon on mun naa laa wax la daan xapoon ci àdduna si forty thousand years ago <laughs> mun naa laa wax li doon xaw ci àdduna si tey parce que da nga war a xam ne àdduna nit nit a ci àdduna for almost two million years yes religion yi ñu ne waa about five thousand te two million years nit a ngi ci àdduna si waaw about what two hundred thousand years ago ci la nit génn ci yëfi rab di nekk ay community di door di génn di di wër di dajale di def ci lañ door sax di xam ne safara mun nga koo use di togga di lekk about 200,000 years ago. So for 100 and almost after for 150 years ago ñun ñoo am nañ nit ñu meloon ni ñun ñu naan leen Neanderthals ak Erectus ñi la ngi woon boori China ñi la ngi woon boori Europe ñun ñooy sapiens dañ daan defalante ñoom di ama ay ñoom ay doom waaye 40,000 years ago dañ leen rey ñoom ñëpp nit ñi ñu leen roy bañ jeex tàkk dañ foogoo ne dafa am lu ñëw yeñ na seen xel yi mutuñ woon ñoom seen wax seen waxal ñoru toon waaye luñ mënoon ëppoon doole sax ñooñu gënoon naa ñemeñ sedda ñooñu gënoon naa am endurance waaye ñun ñoo leen ëppoon xel waaye bi suñu xel mi màccee ci lañ door leen rey benn jeex forty thousand years ago bu yàggoo ni Al ñu ngee wane sax benn kéef ci Italie boo xam ne yax yi ay néandertals lañ fa fekk ay bukki ñoo leen fa yóbbu lekkale ak seen doom yi nag soo xëy yëf yi soo leen toogee fii ñii nga xam ne non non dëgg dëgg dëgg adduna dafa neex rek jàkka jànga daal daf laa dofloo rek waaw jàkka jànga daf laa dofloo rek nga nekk ci sa ruxanaan waaw mun naa mun naa jël reeni reeni reeni euh, bëy boole ko béjjëni dërbu ak deri yow su ma ko jaxasee fii saam-saa dina dee <laughs> yàlla rey yàllaay binda ku la luñ leen ci wax te waxoon la loolu dañ leen naa fenal kenn kenn ko binda waaw loolu daal nañ ko xam tamit su leen ko xamee mu óor leen ne su àdduna si nii la demee te yii nonsense yi génnee leen ko ci seen boppa yi wasalaam ba beneen yoon euh, fii laay yem